sur 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 81 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire est répartie dans les localités suivantes. Rufisque en a 3, Touba 3, Mariste 2, Dakar Plateau 1, Durbel 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Wakam 1, Padoua Sangalkam 1, Ziguinchor 1 et zone A1. 142 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux nouveaux décès à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce jeudi 9 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs, dont 5311 guéris, 145 décédés et donc 2425 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles des, dis, des, disparus et souhaite un prompt à ceux encore dans nos Le ministère de la Santé et l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, notamment le port de masque. On va toujours insister sur l'importance du port de masque, surtout en cette période, mais également le respect de la distanciation sociale parce que nous fréquentons beaucoup les lieux publics présentement, mais insistons également sur des mains.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 ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett test yu ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu nag mun nañ ci wàññi juróom-ñett fukk kaa ak benn ñooy contact suivi par nos mooy maanaam contact yi nga xam ne ñoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji fukk ak juróom-ñaar ñoo ci kaa communautaire mooy ñi nga xam ne feebar bi dañoo seetluwul fiñ ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñett Touba am na ci ñett Mariste am na ci ñaar dakaar Plateau am na ci benn Diourbel am na ci benn Liberté sis am na ci benn Mbaaw am na ci benn Wookaam am na ci benn Patte am na ci benn Sangalkam am na ci benn Ziguinchor am na ci benn zone am na ci benn ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñi nekkoon ci hôpital yi wér nañu te dinañu génn tey bu si yàlla ànde fanweer ak juróom-ñetti cas ñu ngi ci service réanimation yi ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ni ki démb alxamis juróom-ñeenti fan ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen yi nag ñu ngi am tan ci bësu tey daleko ci kaa bu jëkk bi Sénégal commencé wàññi doomu ja euh, mbas mi ci biir réew mi mun nañu wax ne que Sénégal jot na wàññi juróomi junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn doomi aadama ñi nga xam ne jot nañu am doomu jàngoro bi ci ñooñu nag téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni mbokk ci feebar bi di ñaax askan bi ñu gën a sàmmante ak digle yi ñuy yi ñuy joxe bés bu nekk ci ñooñu nag ñuy fàttali toujours masque bi dañ cee war a bàyyi xel lool surtout ci jamono ji ñuy nekk ak aussi ci bërëb yi nga xam ne ñu ngi fay dem ci temps yi di wax nit ñi tamit fépp fi nga xam ne fu ñuy dem nañu bàyyi xel ci li ñu wooye distanciation ñu bañ a toujours bàyyi ngay bàyyi lu toll mètre sa diggante ak ki nga dendal di bañ a fàtte raxas say loxo saa boo génnee wala saa boo xamee ne xëy na am na loolaa li nga xam ne wóoluwoo ko ministère de la santé et l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. yow it ñu ngi lay gërëm bu baax eh, ci xibaar yooyu nga ñu baax.